ngalax nekk na lu askanu Sénégal taamu lool rawatina bu feetu ak teroo mm, suñuy defar ngalax dañuy soxla buy dugub cigi dége sucre vanille suukar ak ay essence vanille yooyu noon les choses ingrédients yu siy dem yooy noonu non je dirais pas ni yomb na jafe na parce que dafa cher dafa cher lépp cher marché fekkee da ngay jënd détail bi mooy gën a métti mais fekkee en gros comme ay gros sac yooyu mooy xaw a tane. soxna si di faral di yekkal ay xaritam moo xam jullit wala chrétien saa su nekk da leen di sóoraale ngir mën leen a yekkal si bile nga ah dafa nekk relation bu yàgg comme li ñuy wax rek sa dëkkandoo mooy sa mbokk loolu la ñun amuñu kenn lu dul suñu dëkkandoo yi. dañuy joxe ngalax yi entre musulmans yi aussi même tamit am na ay xarit chrétien yoo xam ne tamit du ñaax danga la may. non dañ siy kontaan dañ siy kontaan parce que jël lekk di ko partager ak sa morom loolu lu baax la daal. gannaaw si loolu mi ngi sàkku si autorité yi ñu xoolaat bu baax ndaxte jàpp nañ ne ndugg bi lu seer na te loolu baaxul si ñoom. benn yoon. vu que lépp cher na si jamono bi surtout Sénégal ak fu ñu toll nii. donc ñoo ngi ñaan suñu autorité yi. ñu gëstu nit ñi daal. pas nit yi dañuy bëgg a def mais duñu man donc t'es obligé te en plus boo yoree ay xale. xam nga xale moom ak feet bu jotee rek day bëgg moro lu moroomam am mu am ko du comprendre donc nañuy jàppale askan bi daal. ngalax nekk li nga xamante ni askanu senegal taamu nañ ko lool rawatina ci feetu Pâques tax na bés bu feetu Pâques ñëwee moo xam jullit wala katolik ñépp dañ koy taamu ngir mëna a savourer li nga xamante ni moo di feetu Pâques